tas micro c'est bon mbokk internautes di euh, comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi ba tey baptême Soukeyna ak ki nga xam ni moom moo di borom këram di Lamine Ndaw euh, ñu toog ak nag kilifaam di papaam doon papa ci Soukeyna euh, papa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa tey lan nga yëg ci bis bi. ah tey moom xol bu neex rek tey moom li ma yëg moom gën ñaaw yu de franchement Souké moom man Souké laa koy woowee parce que turandoom Souké la tudd moo koy Euh, dafa nekk dara si man. daa mel sa doomu xol la. sama doomu xol loolu yàgg na ba ñëpp ma ko daan wax sax sama doom yëpp naa ma kii gën a bëgg mais moom laa gën a bëgg moom laa gën a sentir si man xaw ma na yàlla koy def parce que ma tudd ma tuddee ko tamit sama rakk bu jigéen ku topp si man muy Soukeyna Sall kooku tam ni mel si man mënu ma leen ko expliquer sax Soukeyna ma mënu ma leen expliquer sax su ma la waxee lépp loo xam ne li mu mel si man damay juum baax na yaroon topp su koy mosoo wax mu teg si baat su nga waxee waa Paa dem yoon même su meree sax ngay sant mu dem yoon sama jabar damay wax su koy dafa mer nga xam ne mer mu dem boobu mu dem mais baax na daal ba baax fa yam yàlla may keneen jëkkër joom ku baax koo xam yëg na na gorom lu may wax lu ne du nekk lu wax man daal dama leen seen bés bi mu nekk ay bés yu bare bare bare si ñoom yàlla defal ko jàmm moom moo jëkkëram yàlla may ak wér ak lépp ak mboolu mu jullit nag te eh, yàlla may leen tuut tànk mu tombeek ci weeru kasu rajab bi ñu tuddee ko Serigne Fallou eh, tur bi nan la leen def. waxuma dama man soo duggee sama kër par bi lañ mujj jot man sëñ Saalum man sëñ Saalum laa deewoo sama xol sama doom bi mooy sama cat sëñ Saalum laa tuddee waaw mooy sëñ Saalum. lii daal daf ma daf ma kaw su ma continuer nii sax du ma mën a wax su koy jëkkëram famille woom ñoom ñëpp yal na yàlla dafa jàmm. mu mel léegi daf la gis rek ay ay ay bëtam taa oh, mu nar a sax jooy ba ñëpp naakaan bul jooy ndax cofeel gi mu am ci yow ni nga ko waxee noonu la amee ci yow noonu noonu noonu la moom it cofeelam amee ci yow. loolu moo tax nag ak ak ma su ko noonu tuuti man ma jooy waaw su koy moom dama koy def jàmm moom ak xaritam ñoom ñëpp mbokkam laa mun naa ñoom Foussou Fafa Gueye ñoom ñi luñ koy yedd avant su am ci kër luñ ko yedd amul luñ ko waxul amu si lu baax Fafa moom damaa na mën naa nekk sama doom la sax parce que maa ko sama doom la mën naa lépp jox naa ko Fafa sax. tey soo amoon conseil yoo leen di conseil ñoom ñaar euh, nekk ndaw dugg ci sëy euh, rawatina muy wujjee euh, ban conseil mu topp sëyam te bañ topp wax topp sëyam sa jëkkër moom moo si kilifa topp sa woo kilifa liggéey jëmmal sa góor yi jëmmal sa waa kër bul déglu kenn man maay sa papa maa la ko wax jàppal su jëkkër jàppal su jëkkër loolu laa wax. jërëjëf papa. ah merci merci. di beral nag cant boo xam ne c'est exceptionnel nee muy sama garbaat muy fa Moussa Fall muy Pape Moustapha Fall. nee na Moustapha moom dama koy ñaanal nee sama jarbaat la maa ngi yaanu bokk benn bàyyi nee na Moustapha daf man du ma def lu di ko sant di ko gërëm nee na maa ngi gërëm ñëpp nee na jëmm ji toog di Serigne Bara Mbacké Souhaïbou sama yaakaar tey ëllëg nee man ak moom daanaka doolatuñu sëriñ ak taalibe nee na jëm ji nee na man day mënuma koo fay maa ngi wàcc si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nee na sëriñ Lamin Baara Mbàkke sooy bi yàlla ko fi yàlla yàlla jëm nee na te li may wax nii sëriñ bi xam na man mii koy wax xam naa nee na ndax amoon àddina ñu ne ma njaboot Seexul Xadim bi boo koy jox nee na sëriñ Bara mii laa koy jox nee na jëm ba dara nekkulee dara la man ak moom léegi mu def fanweeri at ma ne ànd suñuy at néewoon na. nee na Serigne Bara Soye bi moo ma dimbali war ma nu ñuy liggéeyee Serigne Touba. nee na keroog barabu Serigne Soye bu. nee na ca fondement ba. keroog bañ koy teg birig yi. man mii bokk naa ci liggéey bi. nee na loolu lépp Mbàkke dama la ciy sant. liggéeyu Serigne Touba bu nekk. bépp bu muy def. man mii la cay jiital. nee na kon boog aw man de aw ma payam. ki tax nag ñuy def maag moom. muy Seexul Xadiim. sunu yaakaar tey ak moom mi am pay. nee na Mbàkke na ma la fayal. nee na Mbàkke na ma la fayal. man lay sëñ yàgg bi lool da nga ànd ak wér. nee na bokk nañ benn néeg ba tey nee na loolu ab tawfeex la bokk ak doomi sëriñ sooy benn néeg nee tëdd nee na gëm loolu njaboot ci man rek ñu naan ko ci am ma koy tarbiyu. nee na man ba ma yàgg na. sama rakk yi ak kër gi ñëpp xam sëñ. sama a nee sama yaay ñëpp a ko xam. di gërëm bu baax sama mag Abdou Ndaw tamit. gërëm bu baax sama mag Abdou Ndaw. ak Pape Mokhonu. ak a rakk yëpp di leen wax jërëjëfati nee na wax bu sax boobu noo may wax nee waaye daal maa ngi sant nee yi gërëm naa ñëpp nee na su ma juumee ci kàddu yi ngeen xam ne ci man la nee na mi déggul ñëpp jërë ngeen lépp lu feeñ ci xol rek lépp lu génn ci xol xol a koy yëg. café gi nga doon sekkal sëñ bi takkusaan ak di ko kuréelal tey bu dugg ci baas bu xool lii xam ni ka café ga am na ñi ñuy bu fe baa ngi nii sëñ bi nag moo ne wax bi xaw a jël la siina daal moo fi xikmat yi boo xam la maaraamu boo koy topp di dem nag say mbokk duñu comprendre ñi nga nekk duñu comprendre. Ah, maa ngi lay delloo ziar. man yaay turandoo Sukayna na waaw man maay turandoo Sukayna. na bàjjanam man maay bàjjanam ma topp ci papaam papaam tuddee ma ko man maay turandoo waaw. lan nga gisee bisu Sukayna. Euh, kontaan torop torop torop torop euh, dafa di sama doom nekk xale bu yaru bu baax bu bëgg ay bàjjanam man de man man bàjjanam man ni ko tuddee bëgg na ma teg na ma sama place rek fekk na ma. minute bu ne fu mu toog dina ma woo téléphone waa bàjjan li bàjjan li bàjjan li bañ na ba jëkkëram sax daf naan bàjjan bu ndaw bi waaw bés bég naa nag ci bés bi torop surtout que nag man bàjjanam ma am barki démboo Njaay sëñ Fallou moom it mu am sëñ Fallou kon xam nga ni hasard amul. hasard amul kon dafa mel ni sëñ Fallou da teral ci weer. teral nañu ci weer bi. man sama bos le huit la juddu moom bosam dix jour rek la ñu magantee mu am sëñ falu ma am sëñ Fallou maa ngi gërëm bu ngi leen di gërëm nag bu baax a baax a baax a baax xale bu baax la bu yaru di ko ñaanal yàlla saxal ko ci sëram di ñaanal tam jëkkëram ndax kontaan nañ ci moom ndax ni mu téewee suñu doom ji macha allah kontaan ndaw dafa baax moom la ñëpp wax waaye tey lan ngay dénk sukkay na doon xale dugg ci sëy fekk fi fekk fi jigéenam euh, tey noon naa def lu ko neex wala mu menee nu mu neex waaye gis nañ sànq ba tey ñuy wax relation bu rafet la ñuy wax lan nga leen a gën xanaa mu topp ci ginnaaw man mi bàjjanam ndax man bàjjanam dama fekk ji te sama aawa nekk sama xarit sama mag wa du ma def lu ne lu mu yëgul moom tamit toof rek lañ koy ndax loolu la xam fi muy mu nekk nii loolu la xam ñun loolu lañ koy jàngal loolu rek lañ koy jàngal mu topp xam ne magam la fa fekk topp ci ginnaawam ndax wijjee bokk wërsëg rek la te magam la te moom nekk na xale bu baax bu am dégg-dégg macha allah ku ko wax dina la déggal te dina topp ci ginnaaw magam macha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan naa bu baax a baax a baax merci beaucoup. yaay Cheikhouna Mouhamadou Basiru ndaway yaayam Ayda Basiru ndaw Basiru baayam Basiru ndaw muraatay baayam xanaa xamu ne Lamine ndaw mi ñu la dénk Alaaji ndaw commissaire baayam Alaaji ndaw muraatay baayam Muraat ndaw Mooro baayam Mooro ndaw Alassane ndaway baayam nga bopp coow joor bañu ah sa njëkk nga dendal na fi satu ndaw alaaji Ousseynou Ndaw ay baayam alaaji Ousseynou Ndaw fat say tëdde yaayam caane say tëddi mariam say tëddi sambak sampal samploir de borom nag ak meer li ngeer yaa ngi nii lingeer la yaay séeri Sukayna yaay fallu laay sëriñ fallu fa mu jàppee ndox ma bale sëriñ fallooy boroomi may kuy wuti xam-xam ey matatul ngay sori sëriñ bamba gàgganti na bind na bàyyi fi wax man bamba daawul tooñ du fayantu luy tooñ li la yàlla ak yónneen bëggoon li bamba doxal ba dem na fi na ci sagal xaalim moo la ñaanal waaye ki may way Serigne Bamba ni may moom te mooy man yow way samba Serigne Bari xanaa xamu ni Serigne Bamba ni waxab liyal xidma sahil wawal amal asalihal lazi yukamilul amal lim xaadatul wujuri wal masaliw bi tey wal jës bi wa inni salim lu fi mu taxaw moo ko bàyyi noonee Serigne Sall ci lu mu ne yàlla jàpp loolee mbokki internet yi ki ma toogal nag kenn du ko présenté ki mooy Aram borom parfum yu neex yi ak sañ-sañ neex yi ci réew mi euh, ñu ñëw tey fekk ko ci ngénte euh, Soukeyna mu doon xaritam doon lépp am Aram nuy naa la. maa lay fay bu baax. tey kàddu seede ngay ngay def ci Soukeyna sa xarit. waaw euh, Soukeyna sunu sœur la sunu rakk la muy bu baax boo xam ne lépp lu muy dugg def ñu ci def ñu def ñu koy wax lépp balaa muy décider dara ci àddunaam sax je veux dire. def ñuy wax donc nit la boo xamante dafa am respect ci nit donc voilà mënuma wax sax nag. yan kàddu seede ngay seede ci moom ndax euh, ñu bari tayit euh, doon na koo xamante ni ñu bari fréquenté wu ñu ko nekk ñoog moom euh, yow mi ko waxee léegi sa sœur la yan kàddu seede ngay def ci moom. en tout cas xam naa ne nit bu am respect la ci nit xale la bu am yar et nangoon na sëy aussi te man loolu moo ma gën a neex si moom. casé na toog na jàpp ñamburam donc voilà. lan nga koy dénk mu doon xale dugg ci sëy fekk si moromam euh, doon xale aussi dugg ci sëy doon célébrité dugg ci sëy euh, gis nga sëy léegi kenn du bàyyi kenn mu sëy kenn bàyyul kenn mu ànd ak borom këram yan dénkaane nga koy def tey ci digganteem ak borom këram. Mm-hmm. li ma koy dénk mooy sëy moom avant tout jaamu yàlla la mu góor góorgóorlu jàpp jëkkëram xam nga respecté ki ki mu fa fekk parce que àdduna noonu la mu ngi noonu mu góor góorgóorlu sëy daal. loolu laa koy digal fonk jëkkëram surtout mu nekk xaritam nekk léppam voilà. macha allah sañse bi nag rafet na bëggoon naa nga décortiquer ma ko kaw ba suuf. merci sañse bi nag sama benn copine moo ma ko jox ku tudd Nima Chic moo ma ko moo fi jaar. greffage bi moom dañ ma koy yónnee. mu ngi noonu nga daal di furfulaat waaw. Euh, moom su kenn wax na léegi de sañse yu bari yi nga xam ne tey moom nar na ko sol lépp sa loxo la ko teg nga gérer ko. Euh, xëy na boo amoon soxorte wala bonte du la jox loolu nga di ko gérer ndax li nga yéene sa bopp rek nga ko yéene. c'est vrai comme nu ma ko waxee rek comme sama rakk la lépp lu mu dugg dama bëgg muy am ndam moo tax dama ciy sonn damay ciy def lu ma mën lu ma mënul donc c'est très normal et je le fais avec avec cœur en fait.